saam dong ko mën a am ku ci ne xam na ni fa tabaarakallaahu lii cosaan la sama baay Alaaji Mbaay ci Louga daan ko def waaye nag fa tabaarakallaahu bi mu fi jógee ba léegi sama mag ju baax ji Malick Mbaay la jël leen nga yëpp jox ko waaye maalik nag ànd kook man saam nag moom moo mën a am lii ndax xam naa ne jàpp naa ne Louga ak fii ah du ñaari kilomètre du ñaari kilomètre du ñetti kilomètre saam dong nga mën a am lii ñooy waaw moom wax doo nga ko boo ko joxee ceeb mu lekk boo ko joxee yàpp mu lekk boo ko joxee soow mu naan boo ko joxee macaat mu macaat boo waxee mu dégg la wax doo nga ko ma yëpp ci bokk yam nag waaw fa tabaarakallaa tama yi nag ñoom tama yi la ñu dégg tey jii nii bu tama yi tëggee rek léegi ñu daal di fecc li nga gis dara léegi ci kanam incha allah teewaay bi. teewaay bi comme niñ ko xamee rek eh, tey la journée Sam Mbaye Fall am ñu koy woowee Luc Nicolaï 6 juillet mu tuddee drapeau grand combat bi Luc Nicolaï eh, comme te Luc Nicolaï dafa génn munta teew mu ne ah bàyyi ma yebal teewaay bi munta ñàkk bàyyi ma yebal waa Luc Nicolaï en co muy ay ñoom Père Mbaye Diagne xam nga ñoom Pape Modou bi nga xamante ne moom mi ngi jàpp ci liggéey bi bu baax ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñoom Ousmane Wilane ñoom ñëpp ci ci ci kii bi lañ bopp Luc Nicolaï Enco bi. ki nga xamante ne moom mooy Sam daal di def lu rafet daal di tuddee euh, combat bu mag bi Luc Nicolaï nan ngeen ko gisee. ah rafetlu ko rek parce que Sénégal yi bari nañ ci dëkk bi bu ñëwee ba sopp Luc Nicolaï ba tuddee drapeau. soppal soppal bi loolu la loolu la léegi nag loolu ñu ngi koy rafetlu di ci kontaan. alors Sam defati lu rafet gis nañ ñi ñëpp. Euh, euh, mu daal di tuddee ki nga xamante ne moom mooy euh, Luc Nicolaï lamb ji noo gisee. waaw sax moom promoteur bu mag la promoteur buy def ay exploit yu mag la depuis lors bi mu duggee ci lamb ba tey notamment nag mu digaloon boppam tuddee ko père Luc Nicolaï et puis tout le temps mu koy séddali colère boobu digganteem ak moom ba ren aussi mu jël drapeau bu mag bi tuddee ko ko. père aussi jàpp nekk ci activité bés bi ñoo ko trop nag moo waral mu yónni ñu ñun ñi nga xamante ni ñooy ay doomam ñun ñëpp pour ñu teewal ko fi pour féliciter ko Sam wan ni ko bis bi ñor na ko te kontaan na ci torop non dama ne non boo wax de. Ah, dama ko leen doon waxal. kan ngeen doon waxal léegi. Assane am na courage yu wax leen ne suba ji amul. Assane Ndiaye sañu lool. non delluwaatal ci moom. Assane làmb kaay kaay làmb suba moom moo ji. président moom làmb ji. nee na yaa moom làmb ji waroo yàq làmb. man yàqu yaa moom làmb ji waroo ko yàq. yàqu ma làmb dama leen a wax li am. waaw bu dee da ko ragal nag jàpp leen lim leen rek. ah xam nga loolu. ah la mu ngi nii da ngay napp. waaw nga ne euh, Baye Mandione ak ki nga xamante ne moom mooy roi des arènes Gambie amatul. non dina am dañ toxal date bi yóbbu ko ba novembre ndax Gambie ñun xam nañ ne ma bii nii Sénégal Dakar sax ñu ngi jëm si taw waxuma laa Gambie fan yi ñu fa def chaque jour yàlla ji day taw. dem nañ waxtaan ak mbëri mu nekk loo xam ne moo gën suñoom gën si ñun ñu jël ko yóbbu ko ba novembre incha allah. waa danik lii la la ci mystique danik lii la la ci mystique laa ilaaha illallaah danik xoolal xoolal danik xoolal sëñ bi lim koy diw lii lan la lim koy diw lu mu doon kolifay de ku la wax ni daal lu dul nii waajal na combat bi waxul la am waajal na làmbam ñu ngi ko koy diw ñu ngi ko koy wër danik sëñ bi lan la koy diw nii danik ku la wax ni galaaj amul da lay nax sëñ bi Coly Faye pare na. ah. laay lay laa nangu ta wax. ay laay la laa. lu la loo ci mënta xam mooy Coly pare na dani pareegul sëñ bi pareegul sëñ bee ngi wut fu mu toog toog na simi na daal am na lu mu yor am na lu mu yor ah oui Coly Faye 2 très mystique Coly Faye trop mystique Coly am na suuf suñ koy jox danik am na suuf suñ koy jox ñu ko tibbee ci géew gi mystique Coly Faye Nandi Fall ñu naan di fa moo mën lamb ji bi jëlal sëñ bi ak sengoor bi joko njal joko njal barki alxuraan mu ngi mel ni kuy kuy bàkku ji ngi mel ni kuy bàkku ji danik nu muy def nii sëñ bee gis na Coly Faye 2